foo leen mënta yóbbu noonu la ñuy mel. mais justement moom laa lay wax nii dama la président Ablaye Wade ci boppam dafa nekkoon chef de l' fii ba noppi. Mm. te léeg-léeg mu génn sànni xeer yoo xam ne yii da ngay xam ne ñii. Mm. Eh, sawaay opposition bi moom sax ci digg ba lay jaar sax gars yi nangam nangam mhm. mhm. te pourtant loolu lu tax ñu ne kon Abdoulaye Wade ba mu nekkee président daanañ ko ko wax sax naan Abdoulaye Wade dafa mel ba léegi mi ngi ci opposition bi yooyu mhm. président Macky Sall da daan wax ay kàddu yoo xam ne li opposition boo ko moom ah, ku def langam ñu def la nangam fii ko fii kiiwul duñu la def nangam ku deful dara do dugg ci kasso bi mais yoy chef de l'état lu ko waxé mhm. c'est que dañuy fop dañuy fop sonko tek ci daram lo xamne li lolu barke ak dembu ñun gisoon nañ ko fi ravalé ko ba nopi na pat pataral mhm. Ousmane Ousmane Sonko est naturellement comme ça en matière de communication lolu la waxe té lolu nak ñaar ko gis mu koy def rek xamal nit deug la mhm. ko gis mu soppi baña waxam baña soppi waxam lam la doon wax demb ak lam la doon wax tay nek jenn wax ji jappal na koku nitu demb la nitu deug la pardon nitu deug la autant pour moi serigne abdoulah mbacke daf daan wax naan boy japp nit Hmm. da ngay gam lay fa waxi daawam ji ak jooju ren ji bu dee genn wax ji képp booy jàpp nit a ngoogu booy bàyyi nit a ngoogu hmm. Ousmane Sonko nag wax jëm ni doon wax daaw ak daaw jéeg moom la waxaat ba tey hmm. léegi nag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di def tooxi doona ak yu demee noonu wax nee na ñooñu ñi ngi ci parce que loolu la digoon jeunesse bi parce que léegi réew mi dañu bëgg mu soppeeku nekk ci yeneen loxo man de euh, yeneen yeneen façon doxalin man de yii laa gis Sonko wax ko fi lii nag lan moo ci indi naan mi ngi mel ne mu ngi ci opposition bi am ñu gis ne justement puisque euh, réew mi yaa ngi koy tudd mu ngi ci ay urgence Sonko dafa waroon def focus jamono ji ci urgence yi réew mi nekkee plutôt que muy euh, politique encore. yow nooy ne nooy defee focus ci urgence fekk na yaa ngi ci urgence yi. maanaam. Sonko est déjà dans les urgences mi ngi ci urgence yi. Hmm. bala nga ne nit ki dafa war a nekk ci urgence. Hmm day fekk booba nekku ci ñoom Sonko moo leen wax ne nekkuma ci urgence déjà wax na ko sax ci grand théâtre nee na leen ñi ngi ci mbir yi mm. état du ñaari fan du ñetti fan mm-hmm. loo gis nag ndànk ndànk ndànk ndànk mooy jàpp golo ci ñaay mm. bu fekkonte ne nekkul ci urgence yi kon mën nañoo bind ne waaye alors il fallait que mu dem ci urgence yi nanga mais ils sont dans les urgences mm-hmm. urgence yi kay ñu ngi ci léegi où le problème mm. lan moo lan moo tax mu am ce sentiment de presse ak média ak ni ñu ko war a ràññee Euh, mu dem ba mu nekk mel ci yenn réew tubaab yu mag yi nu ñu fa mel mooy maanaam dafa am média yoo xam ne ñoom dangay leen di dégg rek xam ne ñii c'est des anti Sonko am yeneen média yoo xam ne da leen di dégg rek am impression que ñii dañoo ànd ak Sonko. lan moo lan moo indi mais xam nga euh, ya euh, ancien directeur bu ñu dee wax indépendance. absolument ancien ancien directeur bu Soleil mas na ko wax yaa xam mas naa wax ne amul benn presse bu indépendante à 100 pour cent ci àddina amul. amul mënta nekk sax déjà. ak loo loo équilibré équilibré équilibré. Hmm. d' ailleurs journaliste bi nit la. dafa dafa am ay penchant dafa am ay ay xalaat am ay gis-gis. Hmm. am lu koy convaincre am lu ko convaincre. New York Times par exemple si tu prends nañ jël exemple boobu par exemple aux États-Unis xam nga hmm. il y a les démocrates et les républicains. mais New York Times day jékki-jékki ne man takk ala une ne diw laa àndal. lu am na sañ-sañu def ko. lu xam nga loolu kooku nee na na fàng. mais li muy bind lépp day nekk lu objectif cela n'a rien à voir que damaa contre man sax damaa ragal ne am ci presse bi ñoo xamni contre ñu régime Sonko dañoo bañ Sonko. xam nga ah. oh il y a une différence attention mm. non bu dëgg bu joté nañ ko wax. Mm. parce que la bu fekkente ne la personne mom intéressé wu la. Mm. lu mu def nga xëpp ci suuf. gis nañ fi ay yëglekaay kay xam xamni lu Sonko wax à la une contraire ba la bi non boobu kañ dafa fekk dafa la intéressé au contraire. non non. bu fekkee la personne daf la intéressé. kañ non non non xam nga ku la intéressé doo ko teg ayis. mais voilà waaw yow yow tu waaw comprendre naa fi ngay wax. logique pour logique. logique pour absolument et d'ailleurs li nga wax ni xel man na ko nangu. <laughs> Nicolas bu ma intéressé wul du ma dugg ci mbiram ba koy waxal lu ñaaw. Euh, jërëjëf Oustaz Maodo Faye Ayoba fay

Euh, après suba ay télé ak i euh, presse écrite di tëj. Mhm. su boobaa du doon échec ci régime bu bees bi. mais lu ci seen yoon bu keroog lu ci yoon lu ci yoon régime bi. régime bi il ne font que la appliquer la loi. Mhm. oui boo demee ba boo demee boo demee ba yore sa battu kay. Mhm. bàkku ne man mën naa nangam damay fay nangam fonctionnaire tàngam ñu jox la ay bulletins de salaire nga jël nga jël nga jël imp euh, taxes yi doo ko doo ko versé bu dee lu ñu war a versé employé bi doo ko versé ana xaalis boobu. xam nga loolu lan la. sàcc guddi. Hmm? Ah. luy guddi mooy mooy roppet. xam nga kuy sàcc bëccëg moom man naa yooyu jàppal sàcc baa nga ne mais sàcc bu gën li na fees dem ko moo tax naa samay bunt hmm. na ci presse bi koo xam ne kii hmm. nag bu dee virulence bi ñu dégg ci euh, Sonko virulence bobu lañuy ñuy dégg ci ñaar ba ñetti patron de presse yi nga xam ne ak léegi dañ ko jàppal dara en euh, di ko di ko wane en fait buñ ko jàppee noonu après day jaxasoo presse bi ñu ni tam média yi kenn àndul ak ñooñu nga xam ne ñoom dañoo amit mbeñeel yu personnel ak yu ni mel ci nit ki ñu war a waxante dëgg seen biir te duñu waxante dëgg ci biir presse bi itam loolu itam indi jaxasoo yu bëri mais hein. c'est vrai tu as raison mais c'est compliqué hein mais xam nga ce qui se passe dans les rédactions par exemple am na nag ñu ci mucc quoi mais jeune booy reporter yi nekk ci yeneen rédaction yi da nga xam lu ñuy daj mm. dañuy sonn buy bëgg a dee mm. da nga xam ñaata la leen di jox par jour mm. par par mois wala yu dem noonu am na ñoo xam ne sax daanaka duñu leen fay dara waa léegi nag yooyu yëpp itam mi ngi ci mi ngi ci noonu te dañ ko war a lijjanti c'est vrai que am na Simpix am na Correct am na Celeps et tout mais quand ñu ñun it suñu biir nag war nañoo def nag suñu puutum biir waaw war nañoo tëgg tëgg ndëpp ñun ñii suñu